démb laa seetaan émission bu neex. émission kan la. da Zeng. kon man balaa may téye nga yow man pour man danga naan seetaan naa émission journaliste bu qualifié Zeng dafa xam dara. yaa yaa. Zeng est-ce que xam nga journaliste yi ñu gën a corrompre ci Sénégal fii moom mooy paye. kon yow Thénardier Thénardier ko yow seetaan nga démb émission bi démb si sa si si sa bët yow. dama ñëw fekk mu jeex mais. sa toogoon du ma ko seetaan. Ah, loolu moo tax. man sax du ma ko seetaan sax apporté moo tax. loolu moo tax. loolu moo tax man ku ma waxoon démb ni émission bu neexee noonu am na sax dama naan déedéet démb la invité benn waay. Mhm. waaye bii di expliquer jabaram. Mhm. Ah? Mhm. ni ko jabaram def. Ah? ak lu mu sonn si jabaram. Mhm. ak fi mu jaar ak jabaram. Mhm. ah non dañuy wax mais jigéen bu ñu waxee baax na sunu yaay moo tax. <laughs> gis nga waa ji. Mhm. mu ne jabaram ma waxal itam diggantaan moo ko jox pour mu tabaxal ko këram. boo kër bi pare waa nee na mu jox ko facture mu xool kër bi xaalis bi mu ko jox exacté. lekk ko si un franc. nee na mu mu wëlbatu ndekete moom li mu koy tabaxal yëpp dañ ne takkal ko jabaram. boo jabar ji ñëw. ndekete moom ak jabar ji. maa koy déversé. dafay wax si jabar boo taxaw. non kooku doy sax man fi ma taxaw def na. waaw ah, loolu laa lay wax noonu xam nga si ah, ku jigéen kooku muy wax xam nga jabaru kan jabaru kan la. su ma àndal moo ma tax a yéex ak si nii. Ah mais ça va bien. ça va alhamdulilah yaa ngi ci jàmm baax. oui alhamdulilah. ça va bien naka liggéey bi. ça va bien ça va bien merci. ça va bien meram. oui ça va bien ça va mi ci jàmm baax. ça va alhamdulilah alhamdulilah. da nga liggéey. ça va ji nii rek ñu jàmm baax xam nga daw rek. Ah, da ngaa romb des fois talib day xew. mooy descente yi lu jotee nii la. Mhm. te dama amoon rendez-vous côté fii. ok moom moo xaw a yàggal sax quoi. ok ok. الاول استخدمه الكهربي ومحاولة مصنع الأمن وأي مسكنة فرع الله ودور إلى البنات بالنور دايوا نجمو بيني بابا نجحو خو فعلا دال نوما دال فريمون bind bi baaxul quoi. ok voilà liggéey bi rafetul vraiment wax na ma si loo xam daal vraiment c'est dépassé. waaw après daal ma ne xaaral ma gis ko expliqué ko quoi yaay sama kilifa ci mbir bi. Mhm. su ma jaaxlee damay ñëw wax wax ak yow quoi. jabaru mandaw la yàq dara noonu moo tax man la Zeng xamul dara Zeng bu nekkee moom rek journalisme bi Sénégal moom jaratu ñu koy def te ma xool la benn mbir lii ngay wax nii prison bi nga nekkoon am na ay kaa yu bëri yu mel noonu yoo xamante ne gars yi waxuñu ko ñu ngi bàyyi gars yi ci biir di souffrir loo xamante ne lu metti ñoo xamante ni tey dañuy dem prison. xam nga. toog fa. ñëw fekk seen rakk wala seen pap wala seen keneen ak keneen ëmbal seen ay jabar toog man tey su la waxee man dix ans laa def prison. waaw waaw tey mais man bi ma defee ñaari weer. la sama jabar ñëw fi ñuy waxante téléphone nii dafa am weer da yëkkat sa téléphone nii di wax ak moom. mais allo. waaw ça va Diop na nga def ça va bien. waaw may ma sama baat teg téléphone. lool la la wax. loolu la ma def. dafa xooñ. lool la ma def. mais dafa xooñ ñaari weer. dafa xooñ. ñaari weer mooy xooñ. non dafa gore bu rek. am na ñoom dañoo xamul bon appétit suur naar. Ah, loolu la. loolu la nag am na ñoo xamante ni yow boo nekkoon prison ba te fekk leen ba tey da ngay fekk benn place bi def nii rek. fekk ñoom li ñuy dund au fond ñoo ko xam. seen xol yi moo ñu ngi prison fekk seen papa wala seen jabar wala seen. lekk na seen xaalis bi ñu amul fii yëpp. ëmbal seen jabar. uy sama ndey am ak moom doom léegi eh, boo génnee fooñ ngay def. ku ko def ma nokk la ku ma ko def. xanaa da génn pour sax ko xam. que là euh, ça arrive toujours gis nga métier day bën. métier day bën. bu naan jàngi jàngi jàngi jàngi jàngi peut-être dëgg la don am na. Mm. yàlla mooy def don ci doomu aadama mu am ci don. mais don boobu boo bëggee par exemple tey mu apporter la dara wala mu am durée mën a yàgg da jàngi teg ci. dégg nga xam nga dans les télévisions que tu vois Sénégal heureusement que Sénégal rek la amee boo xoolee ci télévision yi chaque deux chaque deux mois trois mois nga gis ku bees hmm. koo xam ne dañ koy woowee chroniqueur wala ku bees koo xam ne dañ koy woowee par exemple journaliste hmm. wala ku bees koo xam ne dañ koy woowee l'influenceur du peuple bon maa gis nga Sénégal gis nga da ngay gis koo xam ne ci koñam lay toog di naan ataaya rek mën a waxtaan mën a développé ñu ne ko non yow yaa mën diw yaa mën diw yaa mën diw demal ci télé yi ñu jël la tu peux être un journaliste tu peux être chroniqueur te or que xamoo dara. mais Sénégal fii tey boo jógee prison boo demoon tey bëgg julli ci jàtt gi sax am ñoo xamante ni tey dañ lay xoolee bëtu kii da koy sama xaalis. yaakaar ne yow sàcc moo tax ñu dugg fa parce que erreur moo fa dugal donc soo xool biir rafet na tey boo demoon di takk jabar naan yii kii génnoon kaso nii man man yàlla na jombul kenn mu yàlla musal si kaso waaw yàlla na fa yàlla musal ñëpp kay ah, waaw nekk rek condition yi ñu gën a ñu nekk sa jabar bi dafa ñool de kii am na ay aas non xool ma ko nga baal noonu baalu ma ko maa ngi génn la may doxal bi ma la ma ñaanee baat laa pare ci moom. Hmm. heureusement yàlla def na amuñu ay doom. Hmm. mais tey bu ñu amoon doom xale yooyu fa lañ jëm. dañuy torox am wala mu nekk fi di cagatoog dafa affaire yooyu sama doom yi nekk si ay souffrance ba xëy dee. Hmm. mooy gis xale yoo xam am ñoo xam ñu ci mbedd mi nii tey naqaru biir kër moo leen génne ci mbedd mi. ñuy def loo xam bëgguñu ko ñuy gàncax wala ñuy dox jàmbaar wala ñuy def langam nangam mais journaliste la moo tax mënuñu dem poser question kooku toog noonu nekk ci mbedd mi yor nii am na xol lan moo tax lan moo tax ngay gens kii sàcc lan moo tax muy sàcc dëgg la mën naa am naxaru xol ñoo ko jàpp ba nga xamante ni moom tey lii ko nekk ci bopp bi attanu ko il faut mu def leneen wala lan moo tax sa jabar def li ngay def amul loolu naqaru xol non man dama gëm yàlla dama gëm yàlla yàlla bi ma ko joxoon yàlla bi ma ko joxoon moo ma teg nattu ma dugg fi ma duggoon yàlla moom moo ma génne demoon kaso rab rabil alamin li nit ñi di def kaso man def ma ko kaso man kaso wàcc naa fa kaamil ñaari yoon. la ilaha illallah rabbil alamin turki jàng waaw. la ilaha alhamdulilah sant yàlla amay ñaan yàlla lii taxoon ma dugg foofu moo fa dugalaat rek. doo ma wan sa jabar bi ma doxaat seen. bu baax maa ngi dem doxal sa jiwaay. soo ko suur naa ko comme ni ma suuree ndox mi ñu tuur mbedd. moom amoon na ay kii yu mool seet. télévision quelque chose de sacré. non man je vois que tu fais des plateaux télé. mais mais doy na. nan nga defee plateau télé te. allez laa wax doy na damay wax ak yow pas écrire un plateau. écrire un oui man chaque jour su ma ñëwee pour sama problème na may indil ay détails di ma xas mais loolu dafa jooy dafa doy ko c' est des problèmes de cuune. waaye du question de cuune. ma wax loolu. c' est fois keroog ñëw naa sa kër nga fekk ma fa di ma wax loola neex ma accepté mais du ma ñëw sa kër. pour benn problème nga résoudre ma ko nga def di wax ñu kenn xamul dafa ñëw pour nga régler ma suma problème boobu mais bu ma si xas quoi. la ma si c'est parce que tu n'es pas un problème. amoo droit xas ba pare attention baax. mais mais mais yow ma ko jàngal. Ah, bien sûr yow doo nit ku baax yow ko jàngal. yow war nga def plateau ak ak yow. man par exemple sama ex ancien sama sama soxna. koo xam ne jëkkëram la woon war nga ko invité plateau muy jël sama soxna di yàq dara. mais aw ma droit ne ko yow koo xam ne yow yaa ko takki. mais man lan laa. te yaa ko takki woon. mais man lan laa man surtout su naan moom. moo tax ñu fay ma am ah. lan mooy problème bi ah. ah. je vois lan mooy problème bi dama ne premier plateau bi jàll na te deuxième ba ak ñëw. parce que comment deuxième bi ñëw kat. dafa doyal damay dafa doy. ça suffit commencé naa ko lancement. dama lay wax ne attention dama laa may lu ëpp. dëgg la déjà ma la toppoon ba topp la. li nga ci def lépp da nga koy supprimer. du ma supprimer définitivement. jaaxal wax. si yaa ngi may mais dama il faut que ça cesse. du ma ko arrêté tey du ma ko arrêté ëllëg est ce que yaa ngi may dégg. ah donc da ngay koy invité mu yàq. tey koo demee nag nee naa plateau bi ngi ñëw te naa ko jàllale tous a réseaux dans lépp. Ah, sama jabar ñu yàq sa jabar koy gën a yàq. bu boo nga jël bàmmeel dama ne bàmmeel nag yow yow moo ci moo si noonu yow yow sa bopp yow dinaa la émission wala émission bi jàll na jëndal bàmmeel yow yaay jënd bàmmeel maa la gën a bàmmeel foofu tu vas voir yow avec man je m'appelle non demal demal demal waaye yow demal def ko yow def ko nga xool yow dóor bal ba ca tu vas voir avec moi def ko nga xool yow man def bu dee sama jabar ngay jël invité ay nit ñuy yàq dem def ko nga xool mooy sa bopp yow tu vas voir avec moi def ko nga xool ba xam du ma la dóor bal yow kii yow ah tu es qui ñàkk fayda xamoo dara ba pare journal bi naa nga yëpp mi ni rek ñu lay jay a wax noonu da ngaa aay da ngaa dégg wolof wala noonu da ngaa dégg français tu parles très bien dañ ne la ah les journalistes bu mag la wala la pour lan on est